asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëfe Serigne Touba jaraw la maam Cheikh Ibrahima Fall làmp fan yi nag dafa am benn mbokk bu laajte euh, recette naturelle pour wàllu vari ko ko varicocèle nag pour ñu ko xamul muy feebar la bi nga xam ni dafay tere nit am doom c'est la dilatation des veines autour du testicule maanaam góor gu nekk am nga ñaari testicule loolu nag muy bourse yooyu muy ñaari neen yooyu bu fekkee dafa am dilatation maanaam mu am malformation muy fi spermatozoïde bi war a jaar dafay fatt boobaa dafay dem ba laaj intervention chirurgicale lii nag c'est juste pour prévenir pour képp kee xamante ni war nañu wala opérer sax varicocèle mën nañu wax ni dootu ko jaar ñun ñu faj yàlla wéral ñu may la loo fajee sa bopp ay remèdes gratuits yoo xam te mën nga utiliser sa biir kër defee ko sa biir kër yàlla defal la ci tawféex. non seulement ay complémentaire d'aliments la da yokk ndox bi yokk spermatozoïde bi ndax ñu bëri dem nañu ba ñu leen di wax amuñu spermatozoïde zéro. manam ñi am azospermie ñi am oligospermie ñi am nésospermie manam amuñu ndoxu seyukaay manké na day am problème mobilité day am problème vitalité buñu sey ak seen soxna day nin bat ndox bi day woyef day nin ba ñen ñi sa doot ñuko am mën nañ leen may ay complémentaire d'aliments yi xam te ne dafay récupérer waat ferñeent yoy ba ngeen am ko bu baax alaykum sëñ Lamine Baara ma ngi lay nuyu di la ziaré di la jox sa wàcc way ah dina la ñaanal yàlla rek nga yàgg ci nga yàgg ci àdduna lu yàgg yàgg di xettali jaam jaami vraiment maa dee doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante ni daal joxe wuñ ci daal maanaam lu ñu xam vraiment yaa ngi xettali jaam yi yàlla na nga yàgg ci suuf waa yàlla na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yal na yàlla dafa sutura àdduna ak àllaaxira lépp looy séntu ci sëñ Tuubaa rek yal na nga ci jot ci barke Seydina Muhammad ni ngay xettalee jaam yi yal na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg nga joxe yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di la sant bu baax jërëjëf. li ngeen ci njëkk gis nag na ngeen xam ni sump moom ñu bëri xamuñu ko woon waaye am na solo trop bokk na ci lu koy faj ñaareelu mbir ba. lii bokk na ci lu koy faj muy doomi laaj laaj bii benn gus daay la complet bi moo nekk ni la ca des it citron bokk na ca la koy faj citron moom ñaar lañ ci war a am ci kàttan yàlla ak persil boo am baax na xeetu persil yëpp nay persil rek persil bii persil fleur persil chinois comme ni ngeen koy gisee nii luñ ci am baax na bu ko defee ñoom ñëpp lañuy boole xanaa ñu jublu ci comment ça ñu daal di dagg sunu laaj bi rapidement voilà voilà kon nag laaj baa ngi nii moom laay njëkk dugal ci baraada bi persi baa ngi nii. xool nañu sunu set doomu sump ba mu set. raxas ko wetin ba mu set mu dese ñu citron bi voilà ñaari doomu citron yi mo nek ni ñu bolé lepp def ci bi ndox bi bitébu 1 litre et demi ñu bolé lepp baxal au bout de 15 minutes waaw mbokk yi salaamaaleykum waaw ma doon wax affaire ñaanu baara faal yëpp jarta yàkkamti nànk-nànk rek ci mbirum doom mbirum doom moom traitement la rek kii mën na naan tey jël ëmb kii mën na naan ba trois mois doo ko jël ëmb saa dépend ci biir nit ki nu mu tëjoo woon ça dépend ci biir mën na dem ba six mois sax ça dépend jigéen bu nekk at biiram nu mu tëjoo woon parce que man mën naa ne tëju naa ëpp na dix ans ñaari jëkkër yi ma amoon yëpp aw ma ca kenn doom bi ñu gisantee nii daal laa jël ëmb wax dëgg yàlla ci garab yi moom ma ci jox ni ma nan ko yi ma nan sangu di nan pour moy wax mbokki affaire bi mën na ñii mën nañ gaaw la tay mu ñii mën nañ gis dans deux wala un mois mais de toute façon de gis dinañ gis résultat. waaw parce que amna ci jigen ñoo xamni nak des fois mën nañ nan garab gi sen tromble mo fat soit ñu defoon avortement yu bari bari bari tromble yi bu fattee garab bi da ngay nan nank nank rek mu ngi raxas sa bir nank raxas da ngay xëy rek gis sa bir set day am ci ay jigen fekk dañu defoon avortement raxasuñ sen bir bu ñu raxasul bu baax biir bi day dem ba sa trombli bu fatte dom bi du gaaw day yéex léegi bu sa trombli setee pour nga bu day gaaw ñi mësoon am dom di am muy deñ di am muy dem dem muy deñ ñoñu mun na leen dalé nonu nga xam tane bu ñu day xew tuti parce que sen tromble mo ba il faut mu débouché wu dañuy naan garab gi nank muy raxas sen biir ba xey set li ngay naan kay sawé yépp da koy dindi nank nank daal ak ngay sango deug yalla aw ma sa fay jërëjëf merci beaucoup voilà sunu formule bi voilà voilà léegi sunu formule mu ngi ni bii moom nit ki soo ko bëggee gis ci résultat mu gaaw

moom moo gën a baax pour suukar yi wexul ndax amul dara lu wex soo ko mënee naan noonu utile ba tey yàqu ci defaru ci suukar yàqu ko defaru ko incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam ak ma yërmandeem kon képp ki nga xamante ni yaa ngi am sa soxna di sëy moom pendant un te sa soxna tën a am doom formule bii ñu la wan recette bii ñu la wan def ko nga jëfandikoo ko. nit mësu ko utiliser ci deux à trois mois te gisu ci résultat. képp kuñ ko jox rek ci kàttun yàlla dina faj azoospermie faj oligospermie faj nésospermie faj sel completement bu amoon ay dilatation sirit yu dem ba lemu ba fatt ba spermatozoïde bi dootu mën a jàll ba nga sentir sax ñaari nen yi tollootul bii dafa rëy bi ci des ndaw lépp dina ko équilibrer ba mu peral ko ba mu tolloo normal parce que varicocèle ñu bëri xamuñu ni boo ko amee benn bi dafay gën a ngande bi ci des loolu itim kep ki xamanteni xamante ni yaa ngi sentir sa ñaari testicule yi tolloowul ñaari nen yi bi dafa upp benen bi rek bayyi ci xel ta nga xamni li itam lu meuna am la te budé am nga varicocèle dina ko fajj góor bu tok 1 an sa soxna amul dom jëfëndiko li ci kàttam yalla serigne mohammed Lamine Bara Fall moo leen ko don may géejawaay arrêt du balees sen cabine univers bio kon nak defal nañ len ko addé serigne Touba ci dolé imam Cheikh Ibrahima Fall am def garab yoo xam ne rabbil alamin bu ko jëfëndiko ci ndir bu baaxa baax waaw sama soxna ñëw na ci yow sax amee sew pour affaire fibrome bi te mu nekk Thiès. garab boo xam ni daaw ñaari yoon ba garab bi alhamdulilah yàlla def na ba yàlla def na ba ba yàlla def na ci am naa sàq ndeer am naa sàq ndeer léegi. vraiment ci moom ku tëb man xam naa ko yàlla may na ay xewul yu te garab